monsieur le ministre fan ngeen tollu ci arrestation yi. alors ci arrestation yi Mohamed Alimou euh, depuis euh yone euh amna lu mu activé euh, police ak gendarmerie ñi ngi ci euh, terrain bi depuis démb ci Dakar ak ci région yi amna ay arrestation yu bari. Ta arrestation yi am yépp ay nit la yoo xamante ni ñoo doon woote ngir attaqué ay. këru jàmbur wala ñoo xamante ni sax ñoom ci seen bopp ñu ngi woon ci terrain bi di attaqué ay këru jàmbur am na ci ñoo xam ni fekkee nañ leen ak ngànnaay am na ci ñoo xam ne fekkee nañ leen ak cocktail molotov am na ay kër yoo xamante ni sax dugg nañ fa fekk ñoo xamante ni dañ doon defar ay cocktail molotov jël nañ ko ba fii may waxee ak yow tamit ñu ngi nekk ci terrain bi di liggéey police ak gendarmerie ak seen unité spécialisée yëpp du ñu toog noppaliku mukk di ndegam ndare liggéey bi nga xamante ni ñu ngi ci nekk ni jeexul incha allahu rabbi. Mhm. Euh, ci ci loolu euh, am nañu ne euh, li ko waral mooy blocus këru Ousmane Sonko bi jaarul yoon amul benn kayit bi koy firndeel lan ngay wax ci loolu. waaw xam nga Mohamed Alioune dañu nekk dans un état de droit ku nekk am nga ak ku nekk am nga warugar sa warugar bu fekkente ni defuloo ko sa ak da ngay mal placé.

nous som tous comme ni ñu koy waxee ci tubaab d'égale dignité devant les lois de la république ci kanamu yoon ku nekk ci ñun am nga ay àq ku nekk ci ñun am nga ay warugar àq yooyu ak warugar état bi daf ko war a encadrer état bi dafa war a respecter lépp amul kenn koo xamante ni war nañu jug tooñ ko ak noo mënti tudd foo mënti bokk ak foo mënti bàyyee ko état warul la tooñ loolu mooy état de troit waaye tamit yow citoyen bi foo mënti bokk koo mënti tudd ak koo ci doon waruloo tooñ loolu mooy li ñuy wooyee donc état de droit ci ñaari keno yooyu la tënk léegi nag pour revenir ci sa question bi ngay tudd léegi muy li nga tuddee blocus tëddu ko yoon ni muy doxee mooy bu ñu gisee ni am na loo xamante ni mun na jur euh, safaan mën na indi ay jëye ci réew bépp matuwaay boo xamante ni war nañ koo jël ba loolu bañ a am dinañ ko def te dégg ngeen deux mille dix neuf ak léegi RFM nii Euh, échappé wul woon ci loolu RFM rëccul woon ci loolu deux mille dix neuf ak léegi gis nañ benn xeetu discours bu dugg Sénégal boo xamante ni xamuñu ko woon lu am rek wala lu xew rek ñu ni dem leen tàll kër diw lu am wala lu xew rek ñu ni dem leen yàq rajo sangam lu am wala lu xew rek ñu ni dem leen euh, yàq euh, bërëbu liggéeyukaay sangam lu am wala lu xew rek ñu ni kële xañ na dafa xaritoog diw dem leen yàq këram wala dem leen kii ko loolu nag ñi koy def munuñu leen a bàyyi ñu koy def ni lañ leen neexee di jaar fu leen neex di dem fu leen neex te yoon jëlu ci ay matuwaay ak lépp loo xamante ni jàpp nañ ni matuwaay la ngir mën a saafara loolu bañ a am dinañ ko def kon jàpp leen ni maintien de l'ordre ñaari tànk la prévention ak répression prévention buñ ci nekkee lépp loo xam ni war nañ koo def ngir li ñu jàpp ni mën na indi jéye bu am dinañ ko def bu fekkente ni nag jéye jot naa am li ñuy wax répression la ñuy def mooy que ni def lépp loo xamante ni war naa dakkal loolu ba loolu du am. Mhm. loolu laa mënoon. Mhm. dernière question bi mooy euh, appel à l'insurrection boo xamante ni euh, ñenn ñi gis nañ ko euh, ci réseaux sociaux yi surtout certains de nos compatriotes yi nekk ci bitim réew ñu leen tudd fii di def ay live nee nga da ngeen di jël ay matukaay ci wàllu woowule su boobaa ñu xool nu ñuy def pour peut-être jàpp leen. waaw xam nga Sénégal ñun ñoo ko bokk benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. Euh, amul kenn ku nekk ci Sénégal daanaka te amoo mbokk bitim réew ñu nekk ay jàmbaar yuy liggéey fa ñu nekk di daan seen doole di ko yónnee ci askan wii ñu nekk Sénégal di ko bokk ak ñoom amul kenn rek laa wax koo xamante ni daanaka mu ngi yeewoo Sénégal te amul mbokk bitim réew ñi nekk bitim réew ni seen xalaat nekk ay sénégalais ni seen xalaat wuutee ci doxalinu réew mi ak ci politique noonu lañ ñu nekk bitim biir réew mi seen xalaat wuutee ci doxalinu biir réew mi ak ni ñuy euh, gisee ci ni réew mi mel mais ku nekk am nga droit am xalaat bu la neex ku nekk am nga droit far fu la neex waaye xalaat yooyu ak far yooyu wuutewul ni da ngay woote ci noonoo euh, tekkiwul ni da ngay woote ci ñu yàq ñi nekk foofu nag dañoo jàpp ni amul benn yoon bu ñu mën a jaar ñi ci ñiy yàq laa wax may nuyu ñëpp nag maa ngi nuyu ñiy yàq ak ñi yàqul ndax loolu mooy suma warugar mais damay wax ni amul kenn koo xamante ni yaa ngi bitim réew tey di woote ngir yàq wala ngay jox adresse nit wala ngay yónnee xaalis pour di wax ni jënd leen essence taal leen def leen ni yàq leen te bi du jël matuwaay ngir dëkk ba nga nekk ñu yónnee fa ay bataaxal ngir demande leen ni ñooñu nekk ci réew yooyu li ñuy def di yàq fii ci biir réew mi ñu topp leen ci réew ya ñu nekk loolu mooy li nga xamante ni bëggoon naa ko wax euh, ci euh, poñ boobu nga làkk léegi Mhm. merci beaucoup monsieur le ministre. merci merci mon Alimou. Yerjef, merci merci. au revoir.